بسم الله وعلى ملة الرسول ومنهج الخديم السلام عليكم ورحمة الله bu ngeen gisee nu nekk ci biir waxtu wi jot ma ne nañu teg nodd gi ku ne xam na ne nodd bu daanoo jullee fa du dëgg waaye barab bi ak mi mu demee ndéem wax dafa baax jëf baax yéene itam dafa baax loolu moo tax bu ñu jibalee naa dugg fii te kenn mënta a jóg julli fii itam dangay dawal yéene te tedd mooy jàngale asalaamatu wal afiyatu tëkta wala daani fi dunia wal axira ak sérénité s'engendrent mais à partir de bonnes intentions bon parole et bonne action niyetul xayr wa xawlul xayr wa fi'lul xayr loolu moo waral dëggal jubal leeral bu xisbul xaq membre fondateur yaa ngi nii Abu Abdoulaye Mohamed et cetera fi ñu toll ba tuddee tur rek ndax tur yëpp bokkul te ñëpp bokk waaye boo tuddee kenn muy Adama di góor nga tudd kenn muy Hawa di jigéen soxnaa ngi nii maam Fatou baa ngi nii ci wetam keneen ak keneen sama doom yi sama cuppiit yi waaw dangay dem ba nga xam ne booy wax booy wax comme annaasu muxtalifun dangay fexe ba ñëpp bég bala may jàll dama leen di wax ci al imam Wali Seck moom moo téléphoné soxna dégg annonce bi moo njëkk a joxe kàddoom ak mouvement ak secrétaire am bële ba noppi yamul foofu di yónnee ay cadeau rek te yónnee gu ko dara bu ma dalee ci sa kaw nga xam ne ñëw naa man bu ma ñëwee waaye dama bëgg ngeen traduire jataay ak ni mu demee ak jox giñ ko jox parole ak li mu résumé intellectuellement loolu abu yéen intellectuels yi na ngeen ci def ay xalaat c'est très important parce qu'il représente tous les grands hommes du pays moom ñoom la fi ñëpp la fi présenté Jérôme xam naa ni dafa xaw a am contretemps parce que Jérôme waroon na fee ñëw parce que moo fi war a nekkal église di sama xarit Jérôme Diouf ndax dama bëgg ñëpp nekk fi damaa bëgg bu fi murid nekkee itam tiijaan nekk fi xaadir nekk fi laayen nekk fi ñase nekk fi ñëpp nekk fi et cetera parce que c'est la coalition du siècle ni ko Serigne Ousmane waxe léegi sama doom yi sama rakk yi wax dëgg yàlla ñu yore sant wi ak ñi ko yorul seen njàmbaar dafa fees seen njàmbaar dafa fees dama naroon a jox kenn ci sama doom yi di doom yi sëñ Cheikh Absou Faye pour mu wax au nom de l'ensemble des petits-fils de Mame Thierno Birahim ma xam ne bu leen Serigne Ousmane waxalee ñoom ñëpp mel na ne wax nañ xale yi def effort yi itam ci association yi ak mouvement yeeg parti yi nga xam ne participer nañ te duñ leen mën a gën a lim ndax dafa am ay kilifa yoo xam ne am nañ intention wu participer mais comme dañu ko improviser pare guñu pour ñëw loola tax du ñu mën leen mën a lim gis ngeen sama nijaay Mbaye Ngom Ridial nii ci wetu imam moom it famille bi yëpp la fi représenté dafa waroon a fanaani cees tey la waroon dem cees ma ne ko dangay ngay bàyyi ba jóge fii sog a dem nda booba bu fi bàyyi woon sëñ Modou Ngom mel na ni mu ngi fi donc soxna jàmbar la bay mu doon jéem a wax làmmiñ ñuy jubul ci arab waaye làqat ci na ah jàmbaar la waaw bay di wam njëkk a wax ci bisit dimanche mooy azhaba rabbi li siwaayal xaasirin waxaadi li kaw nii surura shakirin bayit bi mu wax ci rajab mooy yaa mutaalliquuna kunu muminin wa muslimina taatan wa muhsinin loolu di la fi soxna wax ma ma waxal ko arab bi ma solidarité waxal ko arab bi bu ko defee ndax pullo bi ndax pullo bi jàng ci bu demee pullo bee gis ngeen wallahi jàmm ak li dul jàmm ci xool rek la yéen ñi wër leen a féete ginnaaw yéen ñooy may seen Mamor sëriñ <laughs> am sëriñ Bas sëriñ kii yéen wër leen a féete kii jiili maanaam yéen a ngi foofu waaye yéen a ngi fii ndax maa yéen yéenay man te li ngeen daj waaw yéen waa Touba TV ko maanaam Moustapha ama ah, nga ne ca <laughs> li ngeen daj yéen li ngeen di daj lépp maa ngi koy xam am nag moom ku ma xam ne xam nga ko rek ma yónnee la cant ci moom wax naa ko Mamour mi wax ko sëñ Moustapha wax ko sëñ Jili donc ku ma tudd rek ci yéen tudd naa ñëpp ngeen ziareel ma al mbakki yu Ahmadou waaw mi nga xam ni sirru ba nekk ci moom man maa koy génne secret ba maa koy génne téye ko parce que dama koo soxla dama koy dem dafa bokk ci pilier yi nga xamante ne bii moom lay ñooy samay cëslaay pour def sama liggéey. la coalition du siècle xaw ma déglu ngeen audio bi ma joxoon joxewoon ñu koy teg dafa am lu ko tax a jóg du pour ay parti politique rek dayre yéeg ñépp ci bokk réew mi ak bitim réew wax naa Cheikh Gana Misra ni ko li féete ci daayira yi moom lañu ñu ko féete leen ak jànkati xasaay di waaw maanaam dañuy bëgg secteur bu nekk ñu am fa kuy coordonné li ko tax a jóg mooy jël majorité bi à l'Assemblée nationale su fekkee bëgg nañu ay réforme am laa wax kat su fekkee bëgg nañ ay soppi am tànn article yi nekk ci constitution bi yi nga xam ne day gàllankoor ku mel ni man ak ku mel ni yow ak ku mel ni yow ak ku mel ni yow ak ku ni yow ba nuy juróom yu bokkul dafa am article yoo xam ne daf ñuy gàllankoor article yooyu ñu jël ko teg fee wane ni nit nit la républicain républicain la africain africain la sénégalais sénégalais la la te guide religieux nit la du muusa du jinaar bu ko defee déglu xaw ma déglu ngeen koom déet waaye dama ne woon nañ ko teg fii dix-huit minutes la hmm? maa ngi ku wax téléphone ma seen la waaw ah, c'est mënut a ñàkk sax parce que mën naa am am sa xarit buy ñëw te egg seegul yërmande fu man di nekk bu jógewul ci ku tedd ki yërmande ku tedd ki mooy gën a yaatu mooy gën a durable loolu moo tax ñu bëgg yërmande ku tedd ki bi mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu waxee ni barakatul maahi xalay yantasharat wa hasamat kulliyati wa basharat mu tasaaroo noonu fépp ak ci ñëpp góor jigéen mag ndaw tedd ki booy bëgg lu baax di ko wut di tànn giid mbaa njiit lu mën a doon ku tedd ki yoonam moo gën a gàtt boo bëggee dem ca yàlla ñi bëgg a dem ci yàlla laa wax de waxuma man ndax man egg naa fi ma jëmoon waaw ndax ba mu ne jaxaltu nafsi fi sadi samadi ku tedd ki bi mu waxee ne moom jël na boppam ak ñëppam dugal ci saatu samadu xam nga maa ngi ci biir parce que ci ñëppam laa bokk man dama koo ñaan ne ko man it maag samay bambiste may ñu dugg ci miimuk Ahmadu waaw booy dugg boo duggul duggoo nit lu muy nekk da koy ñeme man maa ngi ci biir miimuk Ahmadoom mu fay fekk ak lépp Lamine Sarr xam na ci dara maag soxna dañ ko doon jëw bi muy wax ak mbaaxam noom la ko ñoom Mamar mi di waxee ak Serigne Ousmane mii ak ñoom sëñ am mbaax rekk am solo tey nag gis nga bu nit baaxee wan la mbaax wax ko waaye boo gisee leneen bu ko wax ndax leneen loolee danga nga caa am Serigne Touba koy jàngale boo bëggee wax sikku si jàmbur xoolal sa bos concentré wu gis sa bos bu ko defee doo ko wax boo gisee lu baax waxal boo gisee lu ñaaw noppil ndax ku tedd ki li muy jàngale mooy boo gisee lu ñaaw jàppal ni forme bala waaye fond ba baax na da ngay gis objet bu ñu koy nettoyé fekk mu fënd fënd ba ca kaw la rek waaye boo nettoyé mu biir hmm? su leen kii jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul la waaw soxna si pël si dinañ la takkalaat càq bi yow loolu soxna laa koy sas waaw man ku def lu baax ma wax ko bul bu dox sama diggante ñoom xoolal foo taxaw foo xam ni waaw moom mii muy soxna maam faatu Mbacke Ba mbala Ba Mbacke daf maa jëndal ci xaalis loo xam ni valeur bu ay million la xaalis bu mel nii ma def ko ca limousine ba def lu ca jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul en radial may joxe limousine ba addi jël xaalis ba defar lu waat ko def ko nii collier kon fu ma ko teg rek mi ngi may santal ku tedd ki su ma waxul sama làmmiñ mu may santal ku tedd ki jamono fu nekk rek moom it mu cay jot ndax moo ko defoon lu defu waxu nag lu ay di njàmbat man lu ma waay defal surtout lu jëm ci ku tedd ki amul nii dama koy wax ndax malaayika yi dañ koy mentionné e ñu ñëw nag ci coalition du siècle bi Ablaye dem na bay avancé ci imam maa ko bloqué waaw parce que imam nag wax dëgg yàlla man maa ni coalition bi bu ñu koy wootee dans les premiers temps du am président pourquoi mooy intellectuel yi sama ñee nga xam ni Samba Kara leen ko présenté moom waaye professeur seen xañ na ñëpp xamuñu ko waaye daal moom laa mujj nommé coordonnateur parti de la vérité te à partir d'aujourd'hui parti bi day continuer liggéeyam renforcer ay capacités ci commune yëpp Euh, madame Mbacke mii di Oumy Sall ku ne xam na liggéey ba mu def fële ca Mbaba garage ba fi ñu toll ñoom mu niru xam nañ ko ba fi ñu toll doonul maire ba waaye moo topp ca maire ba te xàmmewul liggéeyu diwaan ak liggéeyu parti bi moom it waaw di ay jàmbar xam nga bëggu moon sax di faral di tudd ay tur waaye mënut a ñàkk sama doom yi ñoom benn ak ñoom euh, Sofeek ay ñoom euh, Latif ñoom ñëpp waaw samay bel fii yooyu ñëpp daal wax dëgg yàlla su ma fi nekkee lim du ma wax li ma war a wax waaye yéen ñëpp ni ngi leen di gërëm góor ak jigéen mag ak ndaw sang yi ak ñi nga xamante ni bii ñoo di seen mbokki taali bi ndax fi ñu sëriñ nangam sëriñ bi daa mënta ñàkk rek familialement waaye ñëpp dañoo jaay seen sëriñ jënd ko ak taalibe loolu ma nga tàmbalee ci sëriñ Modou Moustapha ak Cheikh Mouhamadoul Fadil ñu toll ki ñuy wax sëriñ Moustapha moom sëriñ sax Gaynde Fatma ak ñuy wax sëriñ Omar moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma fi ñu toll ñoo leen fi nekkal waaye seen xel a ngi fii ak seen xol waaw ki ñuy wax Cheikh jum yitam jël na engagement wu usine bi nga xamante ni bi dañu ko bëgg a def ci Sikori loolu waxaguma ceeg borom daaru ndax dañ ko waxtaanee ba noppi maawu Sikori bi ngeen doon dégg dañoo bëgg mu devenir usine boo xamante ni bii eau potable lay doon eau minérale lay doon donc te loolu Cheikh Tall Dioum jël na engagement ni loolu dina ci taxaw bu ko defee loolu kon defe naa ni eh, luy neex sukoriyon yi la waaw borom daaru nag mooy borom sukori man maay borom Touba sukori ciseau la ciseau sama waxi démb mooy doon sama waxi tey mooy doon bu ëllëg mooy doon bu gannaaw ëllëg il a déjà fait quelque chose de très extraordinaire jàngal doomam yi lan moo di taalibe ak nañ la ñuy àndeek généralu Bamba jàngale ko nu ne sëriñ Ousmane baayam lañu daan gis fu yaa xafaar toog day taxaw tiim ko sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Ousmane mos ta toogandoo ak moom ci fauteuil ndax kenn mos naa gis borom daaru mu toog man ci fauteuil mu ngoog fi mu nag mu nekk ci sukkori ci ak ngorom ak dignitéem ak ak doyloo waaw loolu dañ ko war a wax te tey yàggatul léegi mu gën a leer ndax foofu dama fa am lu ma fa yàgg diggaate bi ma fa mujjee rek wax naa ko ko nee naa ko fee la piste d'atterrissage ba fee la aéroport bay nekk ku amu fit la ci li ma gëm nee naa ko fee dinaa fa wàcc ak avion personnel te Marème Sèye ngi may dégg mberi ma ma waxoon 77 ne ma man jigéen la xaw ma dara waaye sama borom xamal na ma ne bi la yàlla bind di la bind nga war a doon sëriñ war a doon buur loolu moo tax Ahmed Khalifa Niass ma jóge fii dem këram mu indi benn trône ne ma toog ci ma toog mu indi benn mbalaan di ma ko laxas moom Ahmed waroon na fee teew dafa am ngant ni ma ñu ngi naan Serigne Modou Kara ba ca kanam doo Serigne Bour nga nga xam ne mi ngi may gàtt ngaal man ma devenir le non seulement de la révolution pacifique mais le guide ku defee ni dara jomb na ma umpale nga ku tëdd fi ma jaarale. soxnaa ngi nii Bira Dieye Mor Talla Dieye Oumou Kara Mam Marème juróom ñaar avion bi ma ko tëdd ki njëkk yoon yónnee imperméable yi ñoo ko dindi à l'âge de 35 ans lu ma ndent rek ci cant laa ko teg waaw xadim ndaw mi xam na ni mburoog soow ma gënal ceebu jën fu ma ne ko indil ma mburoog soow mu indi ceebu jën te sant ma ko ma ñëw Ablaye ku tedd ki maa moom mu may defal yooyu dugalal ma oto ci avion dugalal ma fas ci avion ba dugalal ma ñetti mbaam ci avion muy lu raar waaw kon man nu ma sante nu ne wërta jaaxal kenn moo tax bind naa ba bind wëllax ndiku ndax moom laa gis mu bind ni ka fayta ni xëy ba maata jax jaxa mi na yi fa cëkkatu ba jaxa Mouhamadou Abdoulaye mii di soog a ñëw tax ma ko waxoon bi ma ko jotee fekk sëñ Modou Ngom laa njëkkoon a waxal yaa sent xaw ma anamu waaye même bu ngeen ñëwul woon ah yaa sent ah ah yaa sant nga nii waaw maanaam ñii ñoo ma xam ca ba may ndaw di football ñu laar laa woon sax mënu ma woon a football gaa waaye man sama baay daf maa tere woon football boobu ñëwaguma Thiès li ma leen di wax. léegi waxtu wi ci buntu kër gi lay nekk te buntu kër gi benn entrée la am te kër ga zeng woon doonagul woon mur te bi ma élèves yi sélectionné ba ma dem su may ñëw fekk ci buntu kër bi lay jullee timis te avant timis ñëw naa te faaw ma fekk ci buntu kër bi il a fallu que ma taxaw ci koñ bi yër ba xam mi ngi ci bunt bi wala nekku bi nga xamante ne bii yër naa mu seen sama bopp ma dellu te leer na ko ni benn complice laa am te foofu laa yéegee wàcc muy mber yi yaayam sëñ bi damay calculer ba ma demee yéeg seng bi mu xotti ma fii ba léegi légët baa ngi fi bi nga xamante ni bii deret jaa ngi cer yi sama maam dem indi alcool bi di ma ci defal wutal leen leen fu ñu toog sama maam di ma defal alkool bi ba ci yàgg ma sentir Serigne sman boo ko wanee ginnaaw buy ñëw odeur bi ngay sentir ndax jikki bi sama maam di ma defal alcool bi ma sentir ni sëñ baa ngi ñëw mu ne ma Modou doy na fekk xam naa ne sëñ baa ngi ñëw gisuma ko waaye xam naa ne mi ngi mun mu ne ma na ma ne ko doyul dollil muy def ba bouteille bi jeex sëñ bi ñëw ba jub ma ni ma Modou ba noppee nga kay Modou ba noppee nga kaay ca gannaaw waaye fa su yéenu maa noppi du ma noppi xam nga boo noppee la boo noppiwul nag kon doo kaay dama ko xamoon may rey taa bi ba rey taa bi rek ba rey taa bi rek mu génn ci ba rey taa bi rek ma rey taa bi euh, ba nga kii ba mu ba rek ma romb romb romblu ko romb romblu ko mu ni cel xam na ma xam dama ko kii ba mu giif loolu moo tax soxna wax na dëgg félicité na xale yi parce que xale yi xale yi sax nee nañ dama ni leen woon ku jël de xaw ma lan te ci topp nangam ak ki nangam waaye yooyu may romb yi jàll la rek. mi ngi mel ne Barthélemy mii ñu ne ma bindoon ci loxo bi ci fii ba mu fi ñëwee yooyu yu ma romb yi jàll la waaye nag ay signe la yu mat di téye yu mat di téye ndax koo xam ne sa lépp ku tedd ki la booy kafantu sax malaayika yi def waaw oh, Bart maa ko gunge ba ci bunt bi la ma bind ca loxo ba nag man lool sax du sama habitude loolu Alaaji Baare bu sëñ Fallou radiyallahu anhu moo ko doon def xaw ma lu ma ca dugal mënu laa waxit lu ma ca bind en général daal jërëjëf Serigne Touba laay bind wala waaye réew mi daal ñëpp ko bokk na ñëpp ànd mais président Macky li ma ko wax mooy li nu ko jot a soutenir ba mu doonee premier ministre Abdoulaye Wade ba léegi li nu ko jot a soutenir moom na wëlbati ko soutenir nu ko ci coalition du sec waaw li tax ma bëgg loolu bëgguma ñi ko fi remplacer li dal njabootu Abdoulaye Wade dalum njabootam tollatuñ ci boobu jamono ñun dañoo bëgg ñi ko fi remplacer doon ñoo xam ne dañuy baale dañuy jëlale dañuy fàtte loolu bokk na ci sunu liggéey dégg ngeen Mamour sëñ am dégg ngeen loolu bokk na ci sunu liggéey kenn wër nekk ci réew mi Serigne Touba nekk fi daj li mu daj jaar fi mu jaar ñëw ne baal na ñëpp ñu soxlay soldaar mu joxe. ñu jox la xaalis ñu soxla xaalis tubaab yi mu joxe ba ëpp le président France yow nga nekk ci ronam ni dangay ngay fayu mbaa da ngay méchant mbaa da ngay revanche waaw Doudou Mohamed dafa am gis ngeen waaw foo fekk tudd Doudou rek Mohamed la tudd man maay def bu ñu nee la Doudou rek ma indi Mohamed ji taf ci noonu laay doxale gis ngeen réew dinañ dem ba su ma ko waxee ñu defe ne damay lépp dinañ dem ba gaz lacrymogène duutu fi tàkk dinañ dem ba kenn duuti taali pëna dinañ dem ba kenn du lakk oto jàmbur loolu nag kenn képp ko man mooy boroom tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati kooku rek ko man kooku la gasoon kàmb suul ko ca mu def fa juróom-ñaari fan génn ni allahu akbaru min haqdi wa min amali wa min maqale fa kulli taba fillah kooku lañ defoon nañu defoon yonent yàlla ibrahima dugal ko ca sawara kooku ci miim réew ñu bàyyi fi joxañam di alterner ci joxene joxañi tubaab yi communisme socialisme libéralisme ñu ci alterné te leur chef suprême dañoo atte dañ ni Dieu n'existe pas ñu topp ci lang-lang yi ba kañ bindaloon ni xadd fakka kabala xadd batta fadd la fa durru wala wanafu jeey képp ku defe ni damay wax di jële xalaatu kenn ku dul ci mam xamuma li muy wax laa wax li mu waxul waxuma ko ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw calculé ma oh sëñ Fall bismillah oh, jox ko rajo bi résumé ko te résumé ko na gaaw Cheikh Bamba la désigné naa la liggéeyal ma maa yore ndam te maa gañe maa yor lu baax lu gën lu ne Cheikh Bamba la désigné naa la liggéeyal ma signé maa yore ndam te maa gañe maa yor lu baax lu gën lu ne moo tax nga feeñee fa Cees mm. naa leen danaa fi jëf lu yees bañ xam ni maa moom li fi Cees Cheikh Bamba moo ko def mani ku ñëw ci man ma jox ko ko ku ko gëmul ma xañ ko ko kun fa yakun jàng nga ko bi bam shashin la Bamba ni ci sant Bamba ngay fale soldaar bu mag bi yow mi le wër di maaj dinaa kilee sant ko war na moom ku ne tabarakallahu waaw sama doomu nijaay la Serigne Mbaye Ngom Ridial moo ko tuddee sama maam dafa doonoon wëllëree Haji Mouhamadul Fadil xam nga doomi Serigne Touba sax doo ko wutal xarit wala yooyu waaye dafa fonkoon bàyyi kii Serigne Mbaye Ngom Ridial sëñ Mbaye Ngom Rijaal mii moo bind ci man loolu fàllu mii di doomam mu tudde ko sëriñ fàllu mokkal ko man nag ñaare wax ci man li muy moom a tax li ko sama nijaay bind waaye ñaare booy wax ci man rek dama lay teel a baare bëgg nga wax ci ki jara wax mhm. waaw Cheikh na nga jàpp ni Cheikh Cissé jàppal ni yaay devenir le coordonnateur régionale de la révolution pacifique loolu fi ñu toll nii yow yaag professeur seen ciseau ngeen war a doon wur seen diggante wurta am écart waaw waxoon naa soxna ni ko fulal laa feese gis nga coalition du siècle premier membre yi maa leen di tànn parce que ñooñu ay bambis lañu parti de la vérité mooy seen parti waaw parce que ñu ngi ci à partir de dëggal jubal leer à partir de bonnes intentions bonnes paroles et bonnes actions am na loo xamante ni bii wax dëgg yàlla d'accord c'est spirituel parti de la vérité bu sosoo ci Serigne Saliou ak Serigne Mourtada radiyallahu anhuma kii neexal ma ci oto kii reyal ma ñaar fukki xar ak benn jox ma ci juróom benn ñaan yu bokkul xam ngeen ni waxtoo ma ngi waaj a jot de gëm nag ak weer dee fi nekk gaa ñi dañoo for rek ay ci ba xam nit ñi ay xar lañu walla ay bëy ñi ngi wër nit ñiy wax wër leen nit ñiy wax ngeen mën a distinguer ñi nar a dem àjjana ak ñi nar a dem sawara képp ku fi topp waxi koo xam ni du yàlla nee na du yonent bi nee na du ni Sëriñ nee na yéene ànd dem safaan ba kooku moom d'accord allahu yahdi man yasha wa yudillu man yasha ku ne xam na loolu waaye man Modou maa wax ni ku fi toppi waxi koo xam ne du la ni yàlla moo ni du la ni yonent bi moo ni du la ni sëriñ Touba moo ni su ma tuddee ñooñu nag man fu ma nee Serigne tuubaa rek ñépp ngi ci biir Alaaji Maalik a ngi ci biir Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir maa ngi ko doon nettali imam Seck keroog di ko fàttali waxi Serigne Abdoulaye ci diggante murit beeg xaadir beeg tijaan bi ñetti doomi ndey yoo xam ni kii dafa xees kii ñuul kii xeereer ba ne Sëriñ Tuubaa rek umma islaam yépp umma islaam yépp ngi ci biir waaw loolu faaw ñu xam ko seulement daa bokkul ci brang ndax jutta bi mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mux jëla jeysin wa amal ne bokkul fii bokkul fee il est noonu la demee bu ko defee bu ñu ko tudd ngay guuxi leex sa parce que dangaa bokk feneen déedéet bul ci guuxantee leex équipe sax équipe sax équipe de football sax day am capitaine jarul guuxi leex jarul fuñ fuñ 84 la ñu war ca bureau ba ñu rey ñett mu des 81 mu nekk gis nga numéro 4 boobu numéro 4 boobu jógewul ci tubaab yi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad 4 bi jógewul ci tubaab yi borom irham jami al wara yahadina radaa Il est le sauveur de l'humanité. Dieu donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours. Et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzahun arada al khayra fi kilta yi daareni waaw kii ku ko am imaam wax na léegi tudd xumay ni man maa tombi ci benn vidéo boo xam ne mu jël pistolet teg ci bopp nit ni tëf mu daanu ni asamaan sorek suuf noonu la sorek ku tëdd bu dendale mënut a ñàkk indi indi ma te boo ma indee itam boo ma indee itam bu dee ca malaaka ya maa ne ca kaw boo ko tegee boo bëggee gam-gam le indil Ahmad ibn Ousmane le poète du serviteur du messager de Dieu bismillah Lamine Lamine bismillah fële ca Lamine waaw dama léegi laa lay tudd xamal naa ne yaa ci yoon bi waaw maam maam na nga def waaw waaw bismillah fadal waaw xam nga jataay jataay boo gis rek moom mooy Seydina Aliyu ci man ku na xam ne sama diggante ak naa Seydina Aliyu radiyallahu anhu fii doon gi mu doon këram tax na du romb jàll mbaa muy rombaat di jàll yoonam ci gis ma ak bañ maa gis damay ubbi rek ñu ne ma Seydina Aliyu taxawoon na fi nangam ak ki nangam ki mooy Seydina Omar mënoo tudd Seydina Omar Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di sa baay ba noppi nga doonum yambar mbaa yaa fuus xam nga loolu kenn du ko xalaat kon jàmbaar lay doon ñaari yoon moo tax ma wax Abdou Khoudous sama doom ni ko ajjuma jë bu ko rateeti moom laa ko sant parce que dama bëgg mu jële fa expérience bu ñëwee bokk koog ñëppam parce que ajjuma bu nekk dama faa war a teew rue 10 waaw moo tax ma dikkoon ni ko ajjuma bii di ñëw incha allah dinaa ñëw waaye su ma ñëwee ba dem itam duutuma nangu ma nangoo wuute te bàyyee doom moo tax bu ma ñëwal it sama doom dina ñëw loolu laa ko wax naa Omar léegi nag wilaayaat ñépp sëñ Mamoun on en reparlera ndax sëñ bi waxtaan nañ expérience am du ko bàyyi noonu surtout sur le plan politique waaw du caagi na ko sant Mbàkke mbaa buusoo rek dañuy defe ne da war a yem ci der bi rek ak kurus gi rek bismillah waaw waaw waaye toog na ba ay mbokk ma nekk foofu bàyyi ay mbokk ma nekk fee sama doom la joo xam ni yow Mamor c'est bien waaye <laughs> moo gaañi dañoo xamante ay kii la ñu kii la ñu donc euh, bu ko defee ma ñëwaat ci naa Omar waaw coalition du siècle daf ci liggéey li tax mu gën a nekk sama xarit simplicité bi waaw ah, Seydina naa it noonu la simple woon hmm? la simple woon tuddal naa leen fi léegi Serigne Moustapha madame Tandiang waaw waaye xam nga moom mii bu fi teewee Daaru Xuddoos gépp a ngi fi am déet ak sëñ Mamoun mi mu àndal te kon a xam ko ci wilaaya du dëgg léegi moom mii incha allah bu ñu structuré dafay am lu mu doon ci coalition du sec wilaaya ak xisbu ak yooyu yëpp xañ na sax su ma ko waxee am ñu defe ne du yomb waaye li ci kanam rawuti bët ndax ñun li ñuy rassemblé nii leen ñuy def dañuy def lu tuur waaw ñun dañuy duggee ci baabul xayri porte du bien, la porte du bien. Al-Babul Khayr ci la ñuy duggee mooy lan mooy spiritualité bi mooy ku tedd ki bu ñu wëndeeloon nag soog a ñëw ci temporel bi moo tax parti yi la ñuy ñun dañuy laaw daayira yi ba noppi waaw ñi dund ku tedd ki ñoom la ñuy laaw ba noppi indi ñële nag ñuy roqat ci seen biir ñi nga xam ne ñu ngi dund ku tedd ki ak ñi naan nii bu tey ñu ne nii bu subaa ñu ne naa waaw ñooñu ñuy luqar ci par benn pour soowee leen rek dañuy bañ ñëpp sànku naka ngay nekk ci réewum Serigne tubaab mi xam lii soowee nit ñi ba noppi ngay nga maral doo ko def hmm? waaye nag boo waxee boo waxee ba noppi boo waree ŋaat ŋaati nga ŋaat ŋaati sa jaan wàcc le reste nga bàyyee nag ki nga xam ne mooy nangu jëf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 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu góor ngóoraa